aouzu billahi min aseytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki ñuy seetaan ci 7 vision tv ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu du leen ziara bu baax a baax tey nag ñu indi leen woon lenn ci ay alxuraan rek yoo xam ni war na mën a tax ñu bàyyee suñu xel bu baax a baax ci yàlla suñu moom subhanahu wa taala te mooy jaamu ko dëgg-dëgg jaamu bañ a dox ci yoo xam ni ay la yéwén nekk lu suñu borom digle ndax lépp loo xam ne mat naa xam rek alxuraan ji indi na ko lii kaamil alxuraan la lépp loo xam ne mooy jagal dund doomu suñu borom subhanahu wa taala indi na ko ci téere bi kon téere bi bàyyiwul dara ngele yow mii nga xam ne yaa may seetam di jëm ci yoo xam ni métit tax ngay dem ci yoo xam ne daanaa lépp dafa xaram déedéet métit bi suñu borom mën a ko teg moo la ko natoo delluwaatal ci alxuraanu karim sukkandiku ci alxuraanu karim suñu borom dina saafara lépp boole ko nga am ci yiw nag ndax laabluwannakum li shabirin ahasibanaa sudi kazibin am na nett yoo xam ne suñu la ko tegee nga muñ te xam ne suñu borom la subhanahu wa taala ci am yiw di nga ci am maanaam yool ëllëgëmal xiyam kon ëpp naa bàyyi mu dem kon ngele yow mi am métit moo xam feebar la moo xam ne delluwaatal ci alxuraan demal ci ñooñ alxuraan ñu ñaanal la moo gën nga jëm ci ña nga xam ne ay tuur deret lay doon te deret jooju ngay tuur nag ah ëllëgëmal xiyam la nga reyoon te reyoo ko ci yoon dina ne suñu borom wa izal mawudatu su'ilat bi ay zanbin qutilat léegi mel xiyam dina taxaw ne suñu borom diw laaj lu taxoon mu rey ma ban bakkaar laa defoon ba taxoon mu rey ma ndax reyu moo ci yoon xar bi nga béy bi nga rey reyu ko ci yoon ngir ay xërëm ah léegi mel xiyam dina laaj suñu borom waxal diw lu taxoon mu rey ma alxuraan la kon yéen ñi gëm téere bii lay waxal yéen ñi gëm téere bii di commencé ci faate ba na mu jaaree maanaam tàmbale ko ci aaya bi ma bëgg a wax te mooy ci boppu saaru baqara suñu borom ne alif laam miim mbokk nag du caageen dañu leen di firil alquran dit wa maa yaalamu taawilu illa allah waaye dañoo bëgg wax rek ña nga xam ne ñoo gëm aaya bii lay waxal zalika al kitab loolu laa bëgg ñëw rek nag kon alif laam dañu ne suñu borom moo xam lu mu ci nam zalika al kitab boobale téere di alquran ñu ne mu ne laa rayba fiihi huddan lil muttaqin laa rayb amul sikki sàkka fii li ci téere bi ni huddan njub li mu taqin ñeen ñi ragal yàlla nag ñu gëm yàlla moom téere bi njubla yi doon ci ñoom da leen di jubal waaye loo gëmul du la jubal ku la ne kaay ma teg la ci yoon ñëwoo nga bañ ko mën loo teg ci yoon kon téere bii ku mu ñi muy jubal moo ñi nangoo ñëw ñi nangoo wommatu ñëw la ci alxuraan ñu nang ko ñoon la alxuraan di jubal hmm? hmm? alésina mooy gaa yi nga xam ne na gëm nañ bil gayb bi ci kumpa yi xëy bu mooy lu amagut lu lëndëm am na waaye mën na koo gis nga gëm ko ne am na comme raqib ak atid gëm ni soo defee lu ñaaw kii da koy bind donte gisoo ko malaaka bi soo defee safaan ba <laughs> da koy bind donte gisoo soo dee itam ba ñu rob la mun ka ko ak nag dañuy ñëw di la laaj nga gëm ko te tegoo leen bët mooy gëm ci kumpa wa yuqimuuna salaata ñuy taxawal julli ni ko suñu borom diglee ni ko yonent nu alayhi wasallam jàngalee ah wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun ñuy war ñuy dimbalee di dimbale te la suñu borom war segale suñu borom war segal nga di ci dimbalee muy lu am solo wala zina ak gaa yi nga xam ne te mooy gaa nga xam ba tey rek na gëm nañ bi ma ca la xam ne unzila wàcceef na ko ilayka caw Muhammad ñi xam ne gëm nañ la yore ni ah waaw alxuraan la kay waaye gëm nañ la itam wa ma unzila min qablika waaye gëm nañ téere yañ wàcce woon ci yonente la jiitoon gëm nañ noonu wa bil hum yuuqinuun gëm nañ ne alaxira itam day ñëw ta suñu borom dina audit jaam ñépp ñooñu lay waxal ni nañ bàyyee xel téere bii te alxuraan karim yaxam xam sëriñ nga lu la nu la neex waxal lu la neex defal waaye nanga xam ni suñu borom jaanam wàcc na wax nañu lépp artu nañu si oto bu anam bu ne la ñuy wax la ñuy xool la ñuy def lépp nañ ko bàyyi xel te xam ni jaanam wàcc na wax nañu li fi ne kon li ma bëggoon wax rek mooy damay fësal ni ña nga xam ne dañuy dem ci leneen lu dul alxuraan karim gém leneen lu dul alxuraan bàyyi waxi suñu borom fii déedéet nañ delloo seen xol en tant que julit lañ loolu mooy loo xam ne rek moom laa leen indiloon di jégalu baax a baax. di jéggalu nag kanfoor yi nga xam ni suñu borom def nañ ñoom xusus ci téere bi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu